centre universitaire de Dakar après ñu defaat déclaration bi mais ñoom ba léegi ñu ngi déggante ñoom de temps en temps te xamal nañu ñu ne bu fekkee ne yàlla dimbale nañu ba ñoom ñu gisaat ko danañu fexe pour ñu kii parce que ñoom teelu ñu woon gis euh, kii bi ne ñoom dafa dafa réer waaw. parce que déjà kuy wax rek bu réeree pour ñu gis ko ay mbokkam dafay jafe rawatina nag moom ndekete moom du wax donc dafay nekk loo xam luy gën a compliqué la mais moom est-ce que dinay dégg. amul benn problème dégg-dégg mhm, amul mu dégg-dégg. lépp day liggéey mën na am am na kàttan xam nga waaye nag euh, luy problème bi rek mooy wax ji waxam waxam setul moom. en fait da du mën di expliquer ni fii laa dëkk. non foofu moom mënu ko loolu moom du ko mën a def. xanaa koy bóon dafa nekk zone boo xam maîtriser ko ba tax moom mu réer pour retour bi. ñu ko yóbbu na foofu miinu ko foofu bokkul sax ci jëmuwaayam bokkul mosul bokk ci jëmuwaayam moom côté bii mën na fi jógee dem seeti sunu goro bi jóge foofu si dem seeti yeneen nit yi nga xam ne ñoo jege wala ci kër yi nga xam ne ñoo fi nekk après ñëwaat. wala lu bëree bëri ci jumaa ji rek waxtu julli mu dem jumaa bu julli après ñëwaat ci kër gi. Mhm. doxam bëriwul doxam bëriwul. yal na ko yàlla amiin amiin amiin. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal. ñun tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ñaanal yàlla aussi ci liggéey bi ngeen nekk yàlla defal leen ci barke bu baax te aussi Sénégal fii comme pays de la la nit ñi képp koo xamante ne rek ñu ngi lay ñaan bu fekkee gis nga ko walla nga. am foo ko seen rek nga fexe ba jàppale famille bi ndax presque jaaxle nañ daal te léegi muy commencé jël ay trois semaines ba léegi nit ñi ñu ngi wër ay mbiram daal. ñu toog ak bàjjenu musaa ba tey bàjjen ñu ngi fay leen yàlla fay leen seen tànk mënuñu leen fay yàlla mi fay fay leen dëkk yàlla seen tànk waaye yàlla ak suñu borom yokk ko def ci barke dëkk yàlla mënuñu leen fay. maam nan nga yëgee Moussa ni mu réere sant yàlla rek ka suñu borom jaamu yàlla da leen nattu rek waaye Moussa wax naa ni li mu réer ba tey bu ma nee daal delloo eh, delloo naa sama sago demee fen wallahi mënu maa nelaw mënu tiim lekk daal li tax Moussa kenn la ki waajuram fukki bantax ñaar Moussa rekk la ñu bàyyi àdduna paa yaayam gaañu rek ni yaayam di jël ko dem jël ko indi ko bi man ak magam magam tam yàlla defee na nekkee na mbuur ñaar fukki ak juróom moom lañ nekk mbuur ay bi ñu toog fii semaine bi ñu nekk keroog semaine boobu la magam gaañ maa ki maa ki Moussa noo ki Moussa bi pap nijaayam nelaw te tey jii Moussa xamul fenn bu lu jàkk dul xam su Moussa xamul fenn bu lu ga bu génnee rek dafay doxantu xale yi suñu kër goro fii wala géej kër géej mu ñëw waaye bii nag xam naa ni yàllaa ko dugal rek waaye ah alhamdulilah rabbil yàlla maa ngi sant yàlla ndax jaamu yeesul natt waaw yàlla daal moom ñu ngi ko sant di ko gërëm a dëgg yàlla lu mu ñu teg mbir mu sax waaw dëgg yàlla boo baax léegi mënu laa wax ne daal wax dëgg yàlla nekkuma sama sago waaye maa ngi sant yàlla waaw ndax dara jaamu yàlla yeesu dara jaamu yeesu dara waaye Moussa Kaye ah alhamdulilah yàlla ak seen ñaan ak seen barke ak seen kaal mboolem kilifa diine ñaan naa leen muy mag muy muy xale ñaanu xee bu mag kenn naa ñaan ma ñaanal xale bi dellu dellu si sagom jàmm asalaam wallahi loolu rek mooy sama mooy sama loolu ma kay mun maa wax dara di ci yàlla xanaa kay du ñaan sunu borom di ñaan sunu borom di leen ñaan ak mboolem jullit yi ak mboolem kuréel réew mi yàlla feeñal ko jàmm yàlla ni dal ko jàmm asalaam ki daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu rek la mën yow mi nga xam ne yaay bàjjanam nga yor ko lu mat ñaar fukki at ak juróom mu jékki-jékki réer keroog bi mu réeree guddi googu nan nga ko dundee. man dama ko ne ki la cëram sama cër yëpp damm ba léegi wallahi billahi ki la sama cër yëpp damm ba léegi mënuma dara parce que bu ma ne law te dafa ne nit nee na jugal première fois ma ne lay xale yi est-ce que lii dana ma dana ma kii dana la may wér ngeen ma góor-góor rek te nga jàpp yàlla waaw bu soobee yàlla dana ñëw. wax dëgg yàlla boobaa léegi yaay man mënu maa wax dara mënu wax dara pour sant yàlla rek waaw sant maa sant yàlla rek waaw maa ngi ñaanuma kenn moom kenn de ndax ki ma xamul ki ma yëgul ki ma yëgul lax bi la mboolem kuréel yàlla niitu ko ki daraja salaatu fatiha ak seen barke ndax yéen ñooy suñu tàng yenn ñooy suñu bot yéen ñooy suñu doole kon na yàlla jàppal leen waaye musaa réer musaa ba tey yàlla yaay dama ne nekkuma sama palaas waaw ah, waaw maa ngi leen di fay. ko yoroon maa ko yor maa ko yor fas naa ko yéene ma ne leen moo maa kii Abdou Kader yi ñëwaat ma Abdou bi suma doom bi benn bis lañ leen jënd. mosuñu tàggoo boobaat léegi yaayam gaañ la ba léegi damay xalaat suñu borom xanaa kay. ah ki nga xam ne daal sa bokk nga ma ñàkk nga fukki nit a benn Moussa mooy seen fukki ñaareel yaakaar na mu yàlla dana ma bàyyi ma jàpp ma yoru njab ma ma uf njab njab ndoomam balaa yàlla jël ma waaye yàlla ah mu ngi loxoom delloo naa ko loxoom waaw ah, awma ci lenn lu ma la wax di ko di sant suñu borom di leen santaat mboolem ki ko déggee di ma jàppal boobaat léegi nit ñi ma téléphoné fu ne ñu ma téléphoné fu kon ne nag yéen mi nga xam ne yàlla moo yor fay yàlla fay leen boppam mun ma ci dara waaye delloo naa ko loxo yàlla ak mboolem julliti ak mboolem kuréel réew mi yàlla yàlla nital Moussa ni nal ni ni nal ñëpp nital ñëpp ci dara keroog keroog bi muy dem est-ce que gis nga ko. man kare xale lii lu xam ne da lay bett man mii maanee suma doom man ko ñu ngi lay woo ñu ne bakaas yi ñëw nañ mujj bi damaa ñu ne ma ne ko balaa bakaas yi ma ma jot kon ne bakaas yi reer am Moussa man ñu ne bakaas yi ñëw nañ waaye nag man dama laa ko dama ko wax ma yéegi ci kaw. ah ginnaaw boobu mu mësul topp musul génn xaw ma sax da leen di topp ba mu xam ne ñu toog bu mu ko gisul rek jumaa la nekk. léegi bu ñu toogee ñoom aussi bu ñu bu ñu toogee ba jot ñu ne Moussa ñu ne mu ngi jàkkaw ñu ne déedéet ñu ci la xale fàttali ko ah, dañu ànd ak moom waaj man kon nekkoon na yéen dafa ngeen ma dafa ngeen ma foot parce que l'état bu ngeen delloo bu ngeen ànd ak moom ak bi yoon bi ngeen wàññee da ngeen war a téléphoné ànd nañ Moussa waaye nag léegi nag dañ ko ne mu wàññee ko ndax àgg na kër ga yow loo ko fekk ne dafa ngeen loolu waaye bu ngeen dokkee ci biir kër waxal ma ànd nañ Moussa de waaye nag dañu ne mu wàññeeku exte exteegul waaye bu ngeen toog bee waatu reer reer moo jot moo tax ngeen fàttali ko kon nag na yéen def ngeen ma siba waaw loolu footu boobu rek moo leen moo leen dal waaw nag ci la nit yi tasaaroo boo bàkk léegi ñii dem marit ñii dem seeraas ñii dem caaro yi fale marché bés fu ñu fu ñu demul fu ñu déclaréwul waaye xam naa ni mu ngi loxo yàlla waaw xam naa ni mu ngi loxo yàlla waaw moo tax ma dellooy lépp ki yàlla amin amin amin jërëjëf muy noonu xam nga bàjjen nag mooy bàyyi te dafa nekk loo xam ne lu foor la doom jooju réer yàlla na ko yàlla nit ndax moo ko yor boobu ba léegi sëñ bi ñu leen eh, maa ngi leen di fay euh, di leen dalal jàmm euh, di sant ñépp di gërëm ñépp wax dëgg yàlla nan nga yëgee xew-xew bi dal seen kaw seen mbokk mi réer boobu ba léegi ngeen koy wër fu nekk waaw wax dëgg yàlla boobu ba léegi ci jaaxle boobu daal ak naqar boobu la waa kër gi yeeg waa quartier bi yeeg ñun ñëpp daal ak mbokk yi ci mbir boobu daal lañu nekk ñun ñëpp def si ay ñaan maanaam xooli ko fépp fu ñu mën a dem fépp fu ñu mën a laajte ak euh, ndimbal yi ñu mën a am ci jaamu yàlla yi ak doomu aadama yi. tamit jéem nañ ci pexe bu nekk daal waaw pour mu dellu siwaat ci kër gi waaw. waaw booba léegi daal wax digg yàlla ñu ngi taaxirlu ñu ngi déglu waaw ba léegi daal amaguñu ci benn résultat ba léegi waaw. wallaay ñu bëbbale waaw bis bi nga xam ne ñoom bis bi ñuy dem waaw boobu ñëw nañ ba ci man man maa leen jox sax junni ñu téye ko ma leen joxee junni ñu ne ma bu ñu demee dañuy kii jël oto pour mën a ñëw waaye ñoom nee xale yi bu ñu demee ba si yoon bi ñoom ñooy xalaat ci liñ wax ne ñoom ñooy naan seen paas du mat dem ba ci côté stade bi buñ ko paasee si lañ ko ne moom na dëpp si waaw boobu nag ñoom biñ ko nee na dëpp si defe naa ne ay 17 heures dañ fi génn léegi nag ñoom bu ñuy ñëwee si ba ñu ñibbisi ba toog ba heure reer ndax moom heure bu nekk muy fajar muy tisbaar muy tàkkusaan muy timis muy gee si jàq ji la faral di di koy julli waaw léegi nag heure boobu ñoom bi ñuy bëgg a reer si lañ koy laajte biñ ne ana Moussa ñenn ñi ne Moussa mu ngi si jàq ji après ci la xale bi ne Moussa bi man bi ñu demee si yoon bi man dama ko newoon mu dëpp après nag man fekk am na ku ma toogaloon fii c'est là ko ne man ne ko lii de comme dëpp si ngoon la te amuñu si benn résultat wala dégguñu si daal kon xaaral ñu jug maa ngi moom si lañ jug si guddi gi moom ma yab si moto ma ànd ak moom ñu xool côté boobu dem ba tali bu mag génn dem ba côté marché Sam ñu jaalal ma côté marché bu bees génn foofu ma ne ko ñu continuer ci amoo yi ba génn ba kaas ba ci guddi kooku yëpp bi ñu demee ba kaas ba taxaw foofu laajte foofu amuñ ci benn kii après si lañ dellu si si kër gi ñu waxtaan ñu ne nañ xool beneen solution boo xam ne tamit mun nañ ko nuñ ko def. kon ba léegi saa yu ñu xëyee ku nekk ngeen def ñuy ñuy wër aw fii. boobu ba léegi daal ñii dañuy jaar fii ñuy dem ci police bi ñii dem ci hôpital yi. waa quartier bi dëkkandoo yi fi nekk maire yi paa yeeg xale yi ñëpp a sonn ñëpp ci sonn wax dëgg yàlla kenn seetaanuñu ci daara kenn ba ci mbokk yi Guinée Bissau mbokk yi ci golf ñi nekk caaro yi ñëpp ba ci Mbuur ku ci nekk fuñ ko ñu fuñ ko mën a déclarer daal mbokk yi kenn bàyyiñu ci ñëpp ci def liñ ci mën a mën a def ñi am yaakaar ci dem ci ay sëriñ sax ba di laajte ne boo fa yóbbee yéree mag lépp ñenn ñi ku ci nekk daal waslu nga ci sa àq wax dëgg yàlla loolu ñoom tamit ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm si si lépp waaw parce que sunu kilifa bi dañu doon naan booy dëkk wutal dëkkandoo waaye booy tukki tamit nga ànd nga wut àndandoo waaye ñun am nañ ay dëkkandoo yu baax yoo xam ne wax dëgg yàlla lépp dañ ci taxaw dañ ci bokk ñun waaw wax dëgg yàlla amin amin amin wallaay kontaan nañ bu baax ci yéen ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant yàlla barkeel seen liggéey bi mu taxaw leen mu dooleel leen bu baax a baax bi jaay Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. booba léegi mu nekk si yitte yi ak gi daanaka moom lañ jokkool euh, mas ñu ngi lay masaw bu baax a baax booñ doon wax nan nga yëgee xew-xew bi. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm di leen masawu ci coono yi ndax xam naa ne réew moom xat na xataay boo xam ne jóg yombul ñu ngi leen di masawu déjà ci déplacement bi. di leen ñaan nag lépp loon ci def yal na leen ko yàlla fay ay yiw waaw affaire bi daal maa ngi ko yëgee ci Mouhamed Lamine Camara ndax dama toog sama kër ba ay vingt une heure vingt deux heures mu woo ma téléphone ne ma musaa daal la ñuy seet boobu ba tey gisuñu ko ma ne ko loolu moom doy na waar ni mu ne ma waaw ma ne ko foo nekk mu ne ma maa ngi nii ci côté marché jeudi ma ne ko kon xaar leen ma maa ngi ñëw ci la départ daal di dem marché jeudi fekk leen fa. après ñu tàmbali di seet noonu seet dem marché saam ñuy jaar côté sauvegarde ñeneen booy yi doon naa leen woo téléphone sax waaye xëy na dañoo génn ñoom it ñu nekk ci di wër di wër di wër ba presque ay deux heures du matin ñu ne léegi kon léegi loolu nañ leen dem ñu noppalu ba suba ak jàmm après bi ñu xëyee suba gi terewul ba ñu yeewoo Momadou Lamine woowaat ma. ma ñu ànd génn ci suba gi seet dem marché zinc dem polisu géejawaay dem ba ci arena ba euh, seet foofu yëpp gisuñu ko comme dox bi nag da doon xaw a metti après ci laa leen leen léegi léegi dañuy ut beneen système léegi xaar leen ma dem kër ga ma jël moto bi ñu xam nga suñu dawee tuuti taxaw di laajte ndax xam naa ne dox bi day xaw a metti daanaka journée boobu noonu lañu yendoo ba ngoon mujj ñu ko gis après ñu dellu waat toog waaw boobu yaakaar naa moom suñu juumul altine la dileeroon jour bi ñuy woo tamit yaakaar naa altine la waaw bi jour bi ñuy woo di ñu wax nañu waa am na ku ko gis parcelle d'ailleurs waaj ji gër kooku moom xam naa ko bu baax mais xam naa ne xamul ne Moussa fii la dëkk waaw waa moom xam naa ko baax Ibra ndax benn jarbaatam sama xarit la euh, moom xam naa ko bu baax ndax mu ngi yoroon fii place à côté di fi jaay am lu mu fiy jaay moom ci moom lañ bi ñu demee sax bi mu jot ak maanaam ba ñu wax téléphone. ma ne ko jox ma ko bi joxante laa ne ko kan la mu ne ma man la euh, Ibrahima ma ne ko kii moom xam naa ko bu baax ok. juróomi fan. waaw moom sax moo ñu wax d'ailleurs nañu euh, moo ko changé yére moom waaw actuellement nii nee na benn chemise bu rouge la sol ak benn tubéy blouson bu bleu nee na moom moo ko changé ndax moom bi muy dem benn xaftaan bu bële la soloon ok léegi nag nee na moom moo ko changé jox ko benn chemise bu rouge ak benn pantalon blouson bu bleu waaw ok nee na ma après waa waaw dafa watundel dafa watu ndel euh, ndax bi mu fiy jógee karaw la yóbboon léegi après ci la watu ci la watu ndel moom moo ko wat nee na après ci la yëkkati somme bu toll ni 4000 francs daal di ko koy jox après bi mu ko ko joxee gis na sa waay génn nee na même yëreem yi mu soloon dafa ne ko indi indi ma kii ko indi ma teel ci ko mun na ko déedéet dama damay dem neena na yëre yooyu daf ko dugal ci mbuus jox ko ko mu dem ñun bi ñu fa demee mu ndax moom nee na ay 17 la ko bàyyi 18 la gis publication bi ci Facebook après bi ñu demee ñun bi ñu fay àgg presque ñu ngi julli bi ñu àggee ñu ngi dem ci benn waay buy jaay ay kiiwu téléphone ñu dem foofu laaj ko mu ne ñu yàgg na taxaw fii di arrêté taxi mais taxi bu mu arrêté da ngay bañ ci lañ ne ko nag il faut nga jéggi pont bi mooy euh, pont wu 26 bi mu ne ko il faut nga jéggi pont bi dem taxawee nee nee na ci la seen mu dem waaw après ñun bi ñu àggee dem nañ 26 dem ci suufu pont bi xool ñi tëdd foofu yëpp gisuñu ko après ci lañ jël taxi nag remonté ba hôpital Fann biñ ko gisul après ñu dox foofu ba kii yëpp ba université waaw ba université côté yooyu yëpp gisuñu ko ci guddi après ñu wàññeekuwaat waaw. donc euh, moom mu ngi ànd ak sagoom dara jotu ko dafa mënul wax rek pour expliquer fi mu jëm. waaw moom daal loolu mooy problème bi moom wa moom ñàkk wax bi mooy problème bi dina dégg ndax lu ci bëri day ñëw sama kër mooy indi boppam mooy delloo si boppam. ok te day dem ba ay amosis di indiwaat boppam day dem géej di indiwaat boppam mais zone bi mu jaar foofu moo dul yoonam waaw waaw voilà fii moom du fi bëriwul lu muy dem foofu waaw mais danaan ñëw sama kër day dem euh, ba géej ba amosis di indiwaat boppam waaw waaw lool lool lool la quoi. yéen nouvelle yooyu ngeen mujjee am si moom. kooku ko yooyu daal lañ mujjee am si moom bi ñu demee noonu gisaatuñ ko. non woowaatuñu fenn dem. waaw ndax man dem na dalal jàmm euh, déclaré ko foofu ñu ne ma lu ci mën a am après dinañ la woo nga kii ma dem Bodomé aussi pareil dem naa police yi nekk fii yëpp police parcelle police Géejawaay Pikine caaro yooyu yëpp dem naa fa déclaré ko waaw dem naa fa déclaré ko. ok amin amin incha allahu rabbi wayen waa 7TV tamit ñu ngi leen sant di leen gërëm te opportunité bi ngeen ñu may lii yombul ak seen temps bi te àdduna moom ku ne xam na xat-xatu jamono ji ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di ñaan tamit suñu boroom taxawu leen teg leen loxo ba fépp fu ñuy dégg télé yeeg rajo yi ñu dégg leen fa ndagam soob na yàlla ñu ngi sant bu baax a baax di leen gërëm ok jërëjëf. jërëjëf jërëjëf mu ngi noonu dégg ko moom mi nga xamante ne Moussa Camara moom mu réer nekk doom ci kër gi mu fi def na ñaar fukki at ak juróom ndax nee am na 43 ans lenn rek mooy problème bi mooy mënul wax fi mu jëm mais moom xam na fi mu dëkk parce que bu génnaan moom mooy indi boppam mais zone bi ñu ko yóbbu bi ko xale yi bàyyi xam nga xale tamit moom euh, xamul dara moo war a tax ñu bàyyi ko ne ko demal foog ne dina mën indiwaat boppam donc nag mu réer boobu ba léegi ay ñëpp ko wër jaaxle lool lool kon ñu ngi ñaan Sénégal rek photo yooyu ngeen di gis képp ku ko gis bi ngeen gis photo yi nag dafa fekk moom watoogul mais képp koo ko gis dafa wattu dafa nekk nit koo xamante ne nii mu ngi noonu ngeen koy gis ci photo yi képp koo xamante ne gis nga ko mën nga woote ci numéro téléphone yi ban numéro lañ mën a woote ñu mën nañu woote 77 939 04 80 wala 229 61 50 wala ñu woote ci 513 61 94 yooyu yëpp suñuy bu buñ ci woote rek bu soobee yàlla dinañ ñu jot. d'accord mu ngi noonu yal na ko yàlla jaarale fi mu doon jaarale ñi daan jaar émission xew-xew si biir 7TV di ñaan yal na yàlla nit Moussa Camara moom moom itam bu baax a baax a baax ba nga xamante ne dellusiwaat si ay mbokkam leen massaw ndax réer la dafa metti nee ñàkk nit sax nga xam ne kii ñàkk nga ko ñaanal ko tëral ko nii ñaanal ko. sa xel génn si moom waaye koo xamante nii saa yoo xëyee di espérer mu ñëw loolu moom moo gën a metti kon réer dafa metti yàlla na ko suñu borom nit ba mu nit ni mu daan xamante ne ñoo daan jaar si émission bi yëpp den jaajëfal bu baax a baax Cheikh moom moo nekk tey si caméra bi di ko jaajëfal bu baax a baax euh, coordination bi Papis Mbaye Lamine euh, moo nekk si montage bi Lamine Mbengue waaye nu mu tuddati suma xarit ba Pape Pape Mendy moom itam bu baax a baax si coordination bi ñoom ñëpp maa ngi di jaajëfal équipe 7TV équipe la boo xamante ne ñëpp dañuy jàpp si xew-xew ci beneen xew-xew ci biir 7TV télé bi ñu nuru ba noppi ñu dajale jërë jëf